إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين mbokk yi dellusiwaat nañ di sant sunu boroom noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni sunu boroom aji wéet la mu la ci xam ngeen ni sunu bind bi ñu ngi ci waxtaanee saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam woowale góor ak woowale jigéen nga xam ni ay tànneef lañ woon ci kaw suuf bu yonent yàlla yi jàllee ñoom ñooy ñi gën ci kaw suuf nga gëm ni amut kenn kuy ñëwati ci kaw suuf koo xam ni dana leen jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku sarxe woon lu tolloog montagne Uhud ci or benn saxaaba sarxe ngëbëb dugub moo lay ëppale yiw fa yàlla ñu ne ha mu ne waaw même bu ko bacc baccalee wala nasifa même bu ko bacc baccalee wàññi ko muy genn wàllu ngëbëb dugub bu ko saxaaba sarxe woon yow nga sarxe montagne Uhud wa ma adrakum mal ma Uhud fi l azama ak bu ñu xamee Uhud ni mu réyee nga xam ne ay kilomètres yi kilomètres la montagne bu ñaan la ay kilomètres la nga duy ko ci or ba mu fees nga ni boo ko sarxe woon saxaaba sarxe genn wàllu nga bëgg dugub moo lay ëppale laa sakk ni mbokk yi ñooñee dëgg dëgg dëgg ay tànneef lañ woon ci biir tànneef yi ñooñee mbokk yi xam leen dafa war ci ñun ñooñee bëgg leen dafa war ci ñun bokk na ci màndarga ngëm yàlla ci ñun mooy bëgg leen al imaamu al buxaari boo demee ci saxiixam li muy wax ngëm yàlla dafa bokk ci yim doon lim mooy baabul xubbul ansaari min al iman bëgg waal ansaar ci ngëm yàlla la bokk bëgg muhaajiruun yi ci ngëm yàlla la bokk waaye bëgg saxaaba yi ala wajhi al umum ci nit ci ngëm yàlla la bokk fépp fépp koo fekk mu bëgg saxaaba yi te bëgg nga nekk ku lu dëggu ci moom di jëfe seeni njàngale yi balloo ci njàngale yonent bi amal rafet njort ci moom waaye képp koo gis muy ñaawe jëme ci saxaaba yi ko ko ñaawal njort ci moom te nga xam ni suñu borom da koo na ma alal xam ngeen mi ngi nekkoon ci dundu saxaabi bu mag ah alsaxaabiyu aljalil ah almashhur bilal ibni rabah nga xam ni aw turam yàlla defal na ko ci tawfiq loo xam ni bari waa na saxaaba yooyu tudd li ñuy bari bari ay ngëneel dina am ñu leen di xam am ñu leen dul xam waaye bilaal moom jàng ak ñàkk jàng ci yam suñu borom defal na ko tawfiq yi daanaka ñépp ko xam fa fi masariqi l ard wa magharibiha tey ca digg réewi Europe yi fa nit ñu xonq ya nekk nekkoon ay yéefari xullat dugg ci lislaam tey boo leen tuddee bilaal xam nañ ndax kuy dund lislaam xam nga nodd te nit mën ko xam nodd te du xam bilaal kon loolu ci tawfiq yi ko suñu borom defal la bokk subhanahu wa taala soobili bi weesu gisoon ngeen muqaddima bi ñu ko defaloon ci ngëneeli nodd maa ngi koy fàttaliwaat ko baax tey kaay jiite lañ la war a wax nga daw bañ parce que diguñ la ca lu bari waaye kaay nodd moom bul xaariñ wax la ko da nga ko war a xëccoo di ko njëkkantee ngëneel yi no rëy rot ci nodd comme ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu ci loola mu nekk beneen lu rëy waaye lépp nag day delluwaat ci mawazinu xasanaati bilaal insha allah nga xam ngeen ni ku tàmbali ak lu mën a doon ci lislaam nit ñi dala ca roy ña la cay roy ñëpp da ngay am pourcentage mbokk yi est ce que yéen a ngi xalaat ci seen xel yi lépp noddkat bu ma tan nodd ci jamono yonent bi bay àddina tukki bilaal am na ca wàll noddkat bu ma tan nodd ci àddina laa wax te jamono jooje ila an yarisa allahu al arda wa man alayha fi yawm al qiyama amul noddkat buy nodd lu dul bilaal am na ca pourcentage min xaytu tadri aw laa tadri mbokk yi defe naa ni bilaal su amuloon ay julli amuloon ay woor amul ay jaamu yàlla lu dul dem ba àllaaxira di yalang yalangee ci loxoy kese di xaar pourcentage yi muy am ci noddkat yi dina tàbbi àjjana insha allah bu doon loolu dong la yiwu dana mat fa kayfa ka bu amee yeneen yoo xam ne moo gën a xoor yooyu yu mel ni bindab tay bi su ñuy tàmbalee mooy aljannatu tashfaaqu ila bilalin radiallahu anhu allahu akbar àjjana nga xam ne sunu dang dang gi yëpp dañuy sonn ngir tàbbi àjjana mbokk yi kenn ku ne ci ñun kii ma ngay jàng alquran kee toog di ko jàngale kee di naafila guddi kii moom bu weeru koor bi jàllee alxames bi jot mu woor alti soow ni soow ni ñoo bokk fenn fuñ jëm fan jëm mooy dañu bëgg tàbbi àjjana kese àjjana jooju nga bëgg tàbbi yow yaa nam ma àjjana di ko wuti waaye àjjana moom moo nam mu bilaal di ko wut si yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na inna aljannata la tasfaaqu ila talaatatin àjjana dafa nam di ñemmi ñemmi rabti rabti ngir yàkkamti ñetti nit kenn ka mooy bilaal ibni rabax kenn ka mooy ammaar ibni yaasir kenn ka mooy ali ibni abi talib allahu akbar mbokk yi waaye joojee nga déggoon ni moom moo nekkoon jaam bu ñuul te xam ngeen bilaal dafa njooloon sew ñuul kub loolu amul werante noonu la meloon jaam bu njool boobu te sew te ñuul kub ñu koy doyadal di ko diri ci naaj wi di ko xor ñu ne la ko yen ay xeer kookaa mujj am ay martaba lislaam ñoom gi yëpp xam ko àjjana di bébét jëm ca moom moo tax mbokk yi yi ñuy xool ak yi ñuy àtte bi yooyu la suñu borom di xool baaba di ko àtte waaye suñu borom mbir ya nga xam ca lay àtt yooye yeneen la moo tax borom téere bi waxof ju am solo mu ne kayfa stataau bila kayfa stataa bilalun bacda tilka albusra an taxmilahu qadamaahu li yamshi ala al ard bayna annaas mu ne man de gisuma bilaal waaye man munumaa concevoir ko waaye may xalaat keroog biñ waxee bilaal lii àjjana dalaa namm naka la bilaal mel ay tànkam est ce que dina ko mën a dékkoo ci pour muy dox ci kaw suuf ci nit ñi ndax kontaan xam nga àjjana dalaa namm kay jeexal ne ndax da nga fa duggam doo fa dugg kay jërëjëf te wax àjjanaa la namm ci boppam yow yaa ko doon namm di ko wut ñu ne la njëkkante daw ci àjjana léegi mooy njëkkante daw ci jëm ci yow wallaahi mbokk yi bari na ñu ñu ñu am yaakaar ci ñoom ci amuñ gëneel yu toll nii bari waa na ñoo xamante nii kat jaam bii nga xamante ni moom léeg-léeg nit ñi dañ koy doyalal ndax nekkub njaamam ndeketekat ñuulaay wala doyadi wala nekk jaam loola terewul nit ki am ay martaba yu kawe fa yàlla ndax inna akramakum inda allahi atqaakum ndax loolu doy na ci ay bisaaraat déedéet inna annabiya sal allahu alayhi wa sallam yasmau sawta naalay bilalin fi ljanna allahu akbar mbokk yi buraydata nee na yonent bi daa xëy rek ni bilaal kaay bilaal ñëw mu ne ko yow bilaal koo jaar ba dugg àjjana ma jëkk ma jëkk ba jiitu ma fa donte jiitu googu nag alxaafis ibnu xajar leeral na ko ci fatxul baari yi nekkut jiitu bilaal daa njëkk a dugg àjjana yonent bi déedéet ndax bilaal laa fakka taabia la te yonent bi mooy mat boobu maanaam mooy ki ñuy topp kon bilaal toujours day topp waaye lii ak isaara la goo xam ne ñu ngi koy tekkee mooy wane ne yow moom dugg nga àjjana ba noppi loolu rek lay tekki waaye àjjana kenn du fa jiitu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko lu xaw mu ne ko man kat damaa tàbbi àjjana damaa dugg àjjana biig mooy ca rañaan ga ah ma dégg benn capar capari tànk ma laaj waaw kii di dox ci sama kanam kum doon ñu ni kooku day mooy Bilaal ibn Rabaah ma doxaat tuuti gis ab sato bu kawe ma laaj waaw bii ku ko moom ñu ne benn waaye ci arab yi ma ne man de ci arab yi laa bokk ñu ne ko fu mu bokk ñu ne ci Quraysh mu ne kon kay xanaa mën a ndax ci Quraysh laa bokk waaw fu mu doon sax ñu ne ko Omar ibn al-Khattab la allahu akbar mbokk yi bisaaraat maa ngi yaakaar ni ku ko am war a mën a jaaxaan ba xarañ xoolal ñi damaana yi ñu amoon muy garantie yi ñu amoon te keroog lañ gën a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla ndeysaan yonent bi nee na ma geestu seen ab jàng ab jàng xale bu jigéen jonkan ci ron pale bi di jàpp comme laaj naa ñu ni pale bi amara ko moom rek bi ma gisee gis ndaw si rek ma defaat nii yonent bi ni ko amar bi ñu ma pale bi yaa ko moom ma seen gis pale bi ñu ne yaa ko moom ma sëgg gis jàng bi di jàpp ma def nii ndax damaa xalaat omar bu fiir lii xaar ma bañ a xool jàngam bi ci bunt bi omar daal di jooy radiallahu anhu ni a alayka agaru ya rasul allah même bu doon damay fiir sax d' accord naa ko fiir la waaye xanaa damay fiire keneen ku dul yow man noo lay fiire yow yonente bi alayhi salatu wasalaam subhanallah subhanallah subhanallah alazim loolu de xanaa day nuroog waxi Muhammad ibni Sirin ja Muhammad ibni Sirin nee na dana tëdd ba guddi gént di gis jigéen ju bon damay def xabdul basar ci biir gént gi ci biir gént gi damay seen jigéen ju bon di dox mën a digal Abdul Basar ci gént gént dafa ak existe dafa dafa am waaye ragal yàlla gi yeggoon na nee na bu ma gisee ab jàng buy dox ci biir gént gi damay def Abdul Basar comme ni ma ko yàlla digalee bi may jur loolu loolu ayfa ayfa buy yongeen sa diine ba fi ala bi maanaam kalima daanaka defal nañ ko ñoom gaa yooyu rahima allahu aljamia wa radiya an alsahaba yéen tamit waa bilaal yow ban jaamu yàlla mooy boo gën a yaakaar mu ne yaakaaruma lu raw ni saa su ma jullee saa su ma jàppee damay julli ñaari raat yéen bi ni ko kon loola la loola moo la ko may am na beneen riwaaya sax boo xam ne comme bii la mu ne ma doxaat ba mu yàgg seen jigéen bii mën lañ mën la ñuy dem ma ne waa kii kan la ñu ne kii mooy Ummu Sulaym binti Milhaan subhaanallah kii de damay wax ni borom këram xanaa bu déggee lii lu mu ko defati war na kaa mën a muñ te du ko xasa tee dugg nga ajana lan la ñuy wut lu dugg ajana al xumayfa ummu sulaymin binti milhaan ah ummu sulaymin binti milhaan gone yi ummu sulaymin mooy yaayu kan ummu sulaymin ummu sulaymin sulaymin dafa am ku ñuy wax ummu salama kooku soxna yonente saa sallam la am ku ñuy wax ummu sulaymin waxoon naa rab dama leen ko wax tey de anas ibni malik ummu sulaymin binti milhaan mooy yaayu anas ibni malik ummu sulaymin yonente saa sallam ni dégg naa ko mu gis naa ko moom it biir ajana ja moo tax kon mbokk yi di ay ngëneel yu rëy rëy rëy yoo xam ni nit ki bu fekkee dégg na ko léegi li ngay natt sa bopp mooy waaw xoolal koo xam ni ab saxaaba la te xoolal daraja soxba xoolal ab saxaaba bilal alal aqal lu gàtt gàtt gàtt teew na badar te yonente bi nee na sunu bopp bàyyi leen waa badar bàyyi leen waa badar yàlla tiim na waa badar ni leen jéggal naa leen seeni bàkkaar yëpp def leen lu leen neex yaakaar naa ni mbokk yi yii benn boo ci jël rek doy na sëkk waaye xoolal yii bisaaraat yii leen di yonente bi jox alayhi salaatu wasalaam keroog lañ gën a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla waaw yow mi amul benn garantie wala nit fa garantie est ce que yow dëgg-dëgg yaa ngi xalaat ah nan nga war a def musaaxama muy jonjanteeg seeni mbagg ñooñee pour dugg biir aljana kon góorgóorlu ñun la gën a war mbokk yi lii mooy tax nit ci jàng xayam saxaaba def suma ay jeexintal ndax ñii suñ yeggoon ci ragal yàlla bañ di leen di garantie di leen dugg aljana te keroog lañ gën a mën a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla yamuñ ca loola keroog lañ gën a tiit ci seen borom yutuuna maa ataw maa aataw wa qulubuhum waj wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun liñ am ci doole yépp def nañ ko ci jihaad bi liñ am ci concentration yépp def nañ ko ci biir julli bi liñ am ci alal joxe nañ ko ba noppi di tiit naan est ce que yàlla nangu na ko wala nanguwu ko annahum ila rabbihim rajiun sunu borom mu ne ulaika yusaaricuuna fi lxayraat wa hum laha saabiquun ñoo ñooy njëkkante moo taxit ji njëkk nañ maanaam ñoo ñoo doon course ñam jaraloon li dugg ndaw nag moo taxit jël nañ ndam la kon loolu ku ko yëg da nga daal di sampaat yeneen xel wu gën a gaaw yi nga toll bilaal wala hijratu ila al madina bilaal ak keroog biñ gàddaayee jëm madina mbokk mi fi nga nekk mu ni boy féex lool jeeri lal bi nooy lool ah ay daal lu mu bari bari bari bari lu mu néew néew néew néew néew am nga ci ñett jëm ñeent ay yére moom daanaka léeg-léeg sax nga jénne maye dépense moom de am nga ba desal ndax yaa ngi fàttaliku ñi nga xam ni ñoom ñoo tàmbali woon mbir mii ni ñoom dañoo jóge woon Makka ca naaj wu tàng wa ca doj ya malgré que li ñuy ñàkk-ñàkk ay moyens war a def ay jours yu bari ci diggante Makka ak Madina ngir hijra di dox ak seeni tànk façon risque bu nekk mën leen kaa fekk ndax day na yaa ngi ci àll beeg tegg yi waaye yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana ñoom bu ñu amee ngërëmal yàlla yëgatum leneen maanaam xam nga li nit ki lu ko xës ba jaral jaral na ko nit ki li ko xës ba jaral jaral na ko su ko defee ñu daal di génn ak coono bañ ca daj comme ni ngeen ko xamee ci hijra bi ñii dem nañ guddi ñii dem nañ bëccëg ñii seeni loxoy doom puqatiku ca ñii dee ca yoon ba ñii jëlee ca feebar àgg ma dina tëdd faat moo tax boo demee ci al isaaba fi tamyiz saxaaba ñu gis ay saxaaba yu bari xamoo leen ndax ñoom dañoo dee ca déegu njëkk ga ca Màkka am ñoo xam dañoo ñëw Madina balaa ñu ciy tàmbalee kii ñu takkar naa te feebar nañ dee nañ waaye ñoom ñëpp wa kullan waada allahu alxusna ku nekk suñu borom ne tegal naa la sa wàll boo ñëwee fekk ko Bilaal ibn Rabaah mbokk yi ginnaaw bi yonent bi joxee ndigal nañu gàddaay ndeysaan ak lim doon ñiin ñiin màkk moom yonent bi alai sallam mu génn saxaaba yi tamit génn waaye mbokk yi ndeke gis nga yàlla ay mbiram mbir yu kéemtaane la ndax am da ngay gis ku def effort góor góor lu jàmbaare ci ay jaamu yàlla ba nga yaakaar ni kii moom yàlla waru koo teg benn natt fekk suñu borom bu indi natt kookaay gën a metti le xoolal bilaal li mu daj ci yoonu ba yegg si dafa yegg si rek Madina si buru dafa yegg si rek Madina si buru moo tax it ña nga xamante ni ñoom ñooy Utba ak Sayba ak Umayya ibn Xalaf Bilaal bi mu yegg xol bi dafa jeex si ñoom lool mu ni yàlla yàlla nañ ma alagal ñii ma jot a lim ndax ñooñu génn fan nekkoon andi ñu ci dëkk bii nga xam ni yegg si nañ rek si buru daal dañuy daal allahu akbar moo ne fa mu génnee métti na moom it ji ndax fa mu nekkee woon jaam fa la génnee waaye mbir yi ñoom booba ngëneel yi am ci madina xamaguñ ko booba ñoom luñ mën a am ci kaw suuf makkaa leen ko gënal parce que ay ngëneel lañ jotoon xam booba waaye yonent bi saral seen xol ci madina ah ba madina faf nag dàqal leen sax makka nag ndax xam ngeen ni ñëw na ci xadis bi wér yonent yàlla bi nee na yow yàlla ibrahim moo ñaanoon barke ca makka ba makka am barke man nag muhammad maay ñaan barke ci madina loo jox tee jox ko fii ñaar semaine bii passé maa ñaan sama mbokk mu nekk madina di jàng mu jokk ma téléphone ñuy waxtaan ñuy wax ci diggante Makka ak Madina mu ni ma pour war la Madina ni mu leen gënalee Makka ñoom mu ni fi mu ne ñoom ku génn Madina dem Makka da nga yàkkam ci dellu si waat xam nga xadis yent yàlla wal madinatu xayrun lahum law kaanu yaalamun loolu ci ahadis yi mu doon wax ci mu jëntalu jamono la bokk wal madinatu xayrun lahum law kaanu yaalamun mu ne ñoom ba léegi xamuñu mu ni ba léegi ñoom xamuñu lu tax loolu su nekkee madina buñ demee tey sax sax ñu daal biir tuwaat kon loolu day wane nangub ñaanab yonente bi alayhi salaatu wasalaam bilaal ndeysaan daal di yegg ci siburu abubakar yegg ci siburu subhanallah saxaaba yu bëri xam ngeen dafa dafa tàng loolu ñun gayri marra wax naa ko fi dafa tàng ba jéggi dayoo ñoom ndeysaan amuñu woon ay oto yu ñuy dugg ñoom ndeysaan amuñu woon ay parasol yu leen di tiim wallahi yóbbuñu woon ay gurti galaas ndax booba galaas xewul yóbbuwuñ ay ndox yu sedd yu ñuy naan ci bal da ngay gis koo xam ni marwa moo koy rey ci àll gis nga soono yu nekk mu jaral leen ko ndax ñoom yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana parce que yonent bi dafa jëmbat ci seen biir xol yi garabu yàlla moo ma gënal leneen lu dut moom ba loola sax ci jébbi ka meññ moo tax lépp luñ la wax ci ñoom rek leew lay rëy ci ñoom waaye ñoom rëyul woon ci ñoom parce que xeet nan ko xeet nan ko dañuy dem ba li suñu borom bi digal duñ téeme dañ yasalunaka maada yunfiqun na yàlla wax léegi li mu gën a bëgg ñu defal ko ko léegi fi ne dépassé nañ sax léegi di xaar mu yegsi maanaam li jot a yegsi def nañ ko léegi dañuy laaj liy waaj a yegsi maada yunfiqun lan la suñu borom bëgg ñu dépassé ko rek nga ko wax léegi ñu defal ko ko xam nga ci dem ba def la la war ba naan waxal li ci des ma def ko boo ko jekku na def def yi lool Bilaal ibn Rabah bokk na ci ñi nga xam ne bi ñu ñëwee ndeysaan dañoo siburu woon foofu waaye ànd ak loolu lépp jaral na leen ko parce que ngërmandeel yàlla xam nga ñoom maanaam yonent bi moo tax gis nga aw yarin dafa am solo yonent bi dafa yar ci seen biir xol yi doodal àddina ba dara àddina tafu leen maanaam nekk ci kaw suuf di ëppalantee ka ka ka ka ka jaamu yàlla yi suuf ko ci àddina yi def ko digganteeg def ko yonent bi dafa yaroon ba saxaaba yi loola mokk ci seeni xol mu dañ ci ñoom defe naa moom laa doon misaal démb ci suñu dars bi ñu am fii ci sulamul wusul la waral keroog ba ñuy toj yéegi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu dee nekk ay sama min jaanib xëy na xabru ba bañ a dugg ci jàkka jee tax waaye bu dee yéegi soxna ya ca des sa ay bi mu fay doon wax ni dañoo bëggoon ñu bàyyi ci mbaari ñax yi su ko defee fu waay mën ci jóge ci àddina bi boo ñëwee ñu ne la yonente bi alayhi salaam mu màgg mi la doon jégg mu mu yàlla fonk bi nga xam ne bu ko neexoon dëkk ci kaa am or ci kaw suuf te lu wér la moo taamu woon a dëkk ci mbaar yu gàtt yi nga xam ni booy siggi sax mu lay mbëkk ah su ko defee danañ xam ni ñëw pour defar àddina taxuñu woon a jóg waaye dañ koy jaar pour defar àllaaxira ñu ne ñoom loolu moo taxoon bëgguñu woon ko yàq mbaar ya fekk mbaar yaa ngi lënd lënd lënd lënd yàqu yàqate waaye bu ko kenn tax nañ ko fa bàyyi rek mu nekk ci gaaru archive bu ñuy xool kon Bilaal bokkoon na ci gaa yooyu bi ñu ñëwee Madina comme ni ngeen ko xamee ci ay durus yu wees yonent bi yegg si gileem nga ñëw ci kër Abu Ayyub al Ansari yës fa yonent bi sax fa jaara fam jaar Abu Ayyub te nettali woon naa ko fi yonent bi commencé gis ni kat comme mbir yi ay gan lañ am eh kooku jëlee ko yow mii dëkk ci Madina ma boole la ak diw mii jóge Màkk yow mii dëkk ci Madina ma jóge la ak gis nga sunu borom leen tagg naan ah walladina tabawau daara wal imaana min qablihim parce que ndeysaan bu la yonent bi ne eh diw yow laa la booleel waa ji day jàpp ca kooka ba ca këram ñu ko yor naa ñaari soxna du ma la wax damay fase kenn ki nga takk ko ndax man na maa fase ki ma bëggul waaye dama naan la tànnal ñoom ñaar xoolal ba nga ku la gënal bis ni ki tey dootuma fanaan ak moom mu eddaw bu eddaab jeexee jëlal kooku am naa fii tool am naa ca joor ga tool toolu joor ku ne xam ne tool yi dëre ko dàq mu ni ceetal ñaari tool yi bu la gënal dëgg yàlla boo dee xool ba mu yàgg vraiment sahaaba yi ni ñu am noonu rek la war a mën a demee mënta demee leneen parce que doomu aadama bu fekkente dafa seet li gën a riy ci moom ñu mën koo ñàkk te yàlla rek tax damaa jàpp ni kooku lu ko yàlla fayee mérité na ko lu ko yàlla fayee rek mérité na ko doomu aadama xoolal koom-koom ñu mu takkee ci xolam nga xam ni daanaka dagg ko mooy jël si sa keppati ci sa xol bi nit ki mën a jël am koom-koomam joxe ko kan la ko jox mbokkum jullitam ngir lan daa jóge màkk ñëw fii nekk ci étranger xamul fenn lu ko fi indi bëgg yàlla doo ma gën a bëgg yàlla yow moo tax suñu borom ni ñee ulaika humu sadiqun ñii waay ñooñu dëgg waay gis nga ñee tamit kadalika suñu borom tagg leen tagg wu ni mel kon Bilaal ibni Rabax bi mu yeggee nag gars yi commencé séddali ko ba noppi yonente bi tàmbali nag léegi ñu jublu ci jàkka ji moo tax julit kum dëkk mbirum jàkka la war a njëkk yitteel ndax yonente ba mu yeggee jàkka ji la njëkk jublu ñu defar jàkka ji ba jublu tam xëy may soxna yaag ila axiri biñ defaree jàkka ji ba noppi nag léegi mbiram julli jot nag julli nag boo melagul nii mu mel nii nga xamante nii am na lu ñuy tuddee jullit yoor yoor am lu ñuy tuddee jullit nangam am yooyu amul woon booba tàmbali julli julli la woon amul noonu amul ñu xam amul dara léeg-léeg bu heure julli jotee da ngay ñëw ci jàkka ji fekk gaa yi julli parce que heure bi nit ñi duñ ko xam benn bi saxaaba yi tardé gi bari gaa yi ñu ne waaw ñun nañ jiitoo parce que su fekkente ni léegi dañuy ñëw te bëgg yonent bi jiite la ngay tardé est ce que duñu seet benn moyen boo xam ne buñ ko utiliser su boobaa julli gi kenn dootul tardéeti ah comme ni ko Abdullah ibn Omar nettalee mu ni bi loolu amee gars yi ñu ne waaw nañ jël benn kolos comme ni nasaraan def buñ ko yëngalee nga xam ni mu fooree gars yi dégg ko ah ñeneen ñi ni déedéet nañ jël benn genre tuxura rek tuxura ak nit di ko yuuxu ñeneen ñi ni déedéet li gën a simple daal mooy nañ jël kenn nit rek bu julli jotee ñu ne ko duggal ci dëkk bi yow daw ci leen julli jot na loolu lañ jëkk a tàmbali na ndax bee daa nuroog bu yahudi bi nuroog bu nasaara yi te yéen dañoo tere ñu nuroog ñoom ak am solo lenn la nuroog yëfi juif bàyyi nurlewuñ la kenn yéen sa alayhi salatu salaam bu mu sànna peñe kawar gi peñe ko peñe ko peñe ko peñe ko ba mu ba mu kii mu daaneel ko fii mu romb gis yahud bu def noonu sax da koy day xëcc benn ngàll bi sànni fii xëcc bi jël sànni fële pour rek bu ma nuroog yow moom bañ a nuroog ñoom yeggoon na ko fii ñun nag bëgg a nuroog ñoom yegg nañu fi mu ñu yegg tey loolu bilaal commencé yéen tamit ni ko kum yaa bilaal fanaani bi salaa kon del def noonu daw si leen ñu ngi waaj a julli ibne isxaaq nee na bi ñu farataalee nag ay yenn ci farata mbir yi dem doonu ba mu yàgg gars yi dem ba mu yàgg ñu ne ñun daal wax dëgg yàlla bu ñu amoon beneen beneen moyen daal xam naa mooy gën ndax bii daal daal ba léegi daal am na lu def te yàlla am na lu mu na rek sahaaba yi diisoo diisoo solution feeñoon ñu ne waa nañ dem ba suba ñu demee ba suba benn waay bu ñuy wax abdullahi ibn zayd ibn abdi rabbi daal di tëdd ba guddi gis benn waay ci nelaw yi waaj yi dem xam ngeen ne gént mu bàyyi ko ci ku baax ba tey xatal am yeen teer men nu mu woo amatul waaye nag li des mooy gént ak waa ju baax nit ci nu mu la gën a dëggu ci ay kàddu gën laa jub gën laa ragal yàlla ay géntam gën laa nekk réalité ene mu seen benn waay ji dox mu ne ko eh yow jaamu yàlla bi kaay mu ñëw mu ne ko lii nga yore li ma seen nga yore sa loxo lu mu doon mu ne ko man de mbiit laa yore mu ne ko mbiit bi laa bëgg nga may ma ko wala nga jaay ma ko waa ji ci nelaw yi ni ko su ma la ko jaayee wala may la ko loo koy doyee mu ne ko damaa bëgg bu ñu demee ci jàkkay yonente bi alayhi salatu wasalaam bu julli jotee ñu ciy woote ndax tarde bi metti nañu allahu akbar xoolal mbokk yi ci julli ni ñu yitteele ba ci biir nelaw yi waa ji daal di koy wax ci nelaw yi ni ko moom ba léegi xamul waa ji comme loolu waa ji ni ko est ce que doo ñëw ma digal la lu gën loolu ngay laaj mu ne ko lu gën loolu koy laay wër mu ne ko déglul mu ne ma déglu ci nelaw yi waa ji daal di allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ba nodd jeex beneen riwaaya mu ni bi mu noddee ba pare dafa déplacé wu dem ba beneen salaat ni ko déglul bi ci des mu déglu ba ca des mu daal di def li ñuy tuddee yaqaam loolu moom laa shakka ni ruqyan min allah subhanahu wa taala wa ni'ma ruqya abdullah ibn zayd ibn abdi rabbi yeewu ci fajar rek samp xel wi dem ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ni ko man daal lu ma gént mu ni ko loo gént mu ni ko man daal damaa gént waa ji ñëw ma ni ko jaay ma lii mu wax ma lii ma wax ko lee mu daal di commencé daal di wax nodd bi bi mu waxee nodd gi ba noppi yonente bi ni ko innaha la ruya xaqin insha allah lii moom du géntan lii gént ak dëgg la gu bàyyi ko ci yàlla waaye dañu ko alxiha bilaal wax ko bilaal ndax moo la gën a boobu la gi daal commencé nodd nag gis nga bi bilaal yéegee ba commencé nodd omar daal di dégg nodd bi ñu mu yéen naka la nit mën a nettalee gént ak jàmm ndax nekk moom it dafa gént mbir bi maanaam moom li mu jàpp mooy naka laa mën a géntee yàkkamtee yeewu ba nekk ni ko yonente bi benn waaye ci kër bi nekk ni sama gént bi kii du mu jóge moom dafa jàpp ne ak malaa saako ñëw walay demee noonu rek mu samp xel wi di daw di daw ba ñëw seen fasal ni waaw sama gént gi ku koy nekkale gént bi ne ko yow sa gént gi daal nekk gént dëgg rek kii moom la gént moom it bilaal daal di yéeg daal di nopp mbokk yi ndax yaakaar ngeen ni yonent bi ak l'islam ni mu ni mu rëyee ak nodd ni mu nekkeel mandarga mu rëy ci mandargay l'islam yi xam ne dañ koy xàmmee sax dëkkab julit ndax yaakaar ngeen ni yonent bi dana fekk waa joo xam ni mënta wax siin danaan asadu asadu an laa ilaha illa allah mooy gaynde asadu gaynde lay tekki ñu ne ashadu maa ngi seede mu ni gaynde yonent bi di ko dégg mu naan gaynde mu di ko bàyyi foofu mu naan gaynde ba yonent bi xëy faatu loolu daya dal yonent bi la alayhi salatu wasalaam léeg-léeg gis nga dañuy wax yoo xam bëgg layal ay mbir fekk yow yaa ngi def tanaqqus fi nabi sallallahu alayhi wasallam siinu bilal bilal mën ta mën a wax siin day wax déedéet bilal kaana yatakallamu lugata al arabia al fusha ka gayrihi min ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam fadru ahla siyam nañ dellu ci siira da daan wax arab yi set wécc dara lu wokkul dara lu wokkuloon laan nañam bilaan yéeg daal di nodd bi mu noddee carat lañ commencé ndeysaan di julli bilaal di noddal yonent bi yonent bi fal ko mu nekk noddukat xam ngeen waxoon naa leen yonent bi amoon na bilaal ibni rabaax amoon na ibnu maktum amoon na kan amoon na bilaal am na ibnu maktum am na abu mahdura am na saad alqaral ñii ñëpp ay noddukatam la ñu woon saad alqaral sax moo ci gën a am chance gën cee gudd fan ndax moom ca màkka dañuy wax ni moom même bi mu faatoo sax noddu màkka ci njabootam la def saad jaaykatu neb neb yonent bi seen ku muy jaay neb neb mu ni ko yow mii sa jaayu neb neb lii ci noddu la gën a jekk kaay ma fa la noddukat mu boole jaay neb neb ak nodd abu mahdura kadaalika comme daa toogoon ci xale yi di saboté kon kaay leen ma nettil leen ni waa kër yonent bi noddee moom day yéeg xale yi di ko seetaan muy saboté yonent bi dégg sabotage bi ni waaw ku ñëw du foofu ñu ne ko mu ne kii day saboté mu ne kii day saboté ngi baax na ñëw mu ñëw mu daal di koy ñaanal saf li ci dëkk bi ni ko yow da ngay nekk noppi xabi kon moom moom da doon da doon da doon def yëfi xale far yëfi mag fekk ko ca da doon def yëfi xale far yonent bi dimbali ko sotti ko yëfi mag nag Bilal ibn Rabah ndeysaan mu continuer di noggal yonent bi alayhi salatu wasalam ila yawmi an tuwfiya nabi saa sallam Bilal mooy noonu bilaal da doon noddal leen saxam ba yonent bi faatu alayhi salaam li mu faatu nag amaana moom nangootu la nodd ci ngir ay mbir dinaa ko leeral balaa suñu bindi bee jeex tey waaye jamonoy soppeeku moo tax looy def looy def rek xamal te nodd moom ak ci atteem gis ngeen ko nodd ak ci atteem ak ci liqaam ak ci atteem du ma ci jaar ndax darsi bi da sa xaar sam da sa fiq darsi fiq yi defe naa loolu fa alhamdulilah leeraloon nañ ko ci bu yàgg bilaal ibn rabaax xam ngeen ni sangam moo nekkoon umayat ibn xalaf Umayya ibn Xalaf saay saay lool ci Bilaal loo yaakaar ni ci mbugal mu nekk rek jot na ko def Bilaal ibn Rabaax ma Abubakar jënd ko loolu defe naa leeroon na waaye nag wala taalamunna naba'ahu ba'da xiin jamonoy dox jamonoy dox jamonoy dox ba keroog ba dara moo tax gis nga léeg-léeg di nga soxla dara fekk suñu borom programme gudd loolu mooy li ma wax sànq rek te góorgóorlu bi li ngay jàmbaare jàmbaare bi tey suñu borom indil la ay natt ngir natt yooyu moo lay dimbali pour sa maqaama yu kawee nga mar caa yegg solo mettit yii bilaal jóge yépp nekk bis dana ñëw mu sa fayu carat badar bilaal mel ni jàmbaar jooju xam ngeen léeg-léeg nit ñi ci seen dégg-dégg bu ñëwee Ali sa xel dem ci jàmbaar bu ne xaalis sa xel dem ci jàmbaar dëgg la ku nekk saxaaba dafa am loo gën a fëtee waaye saxaaba yooyu ñëpp di woon ay jàmbaar Bilal keroog def na jaral ju rëy ca Uhud ca ca Badar comme ni ko ahlu siyar di nettilee ah bi loolu amee nag ndekete Umayyat ibnu Xalaf mi ngi ci biir xare bi Umayyat ibnu Xalaf moo ko Abdurahmaan ibnu Awf ñoom ñaar ay xarit lañ woon ah Abdurahmaan ibnu Awf nee na man am abdu abdu amrin laa tuddoon abdu amrin te ceddo ga nee na biñ dajee man ak umayat ibnu xalaf ci biir xare bi fekk booba umayat ibnu xalaf sonn ndax xam ngeen ni badar day taal badar wa ma adraku ma yow badrin bis bu metti ci weeru koor waaye lu toll ni la muy metti lu toll noonu ci ndimbal ñëw na leen yumditkum rabbukum bi salaati xamsati alaafin min al malaikati musawiyin subhanallah cinq mille malaaka ah juróomi junni malaaka sun borom ni dama leen di yabal ñu ñëw wa ma jaalahu allahu illa bushra lakum wa li tatma inna qulubukum ngir ngeen xam ne wa ma nasru illa min indillah juróomi junni malaaka ñëw di dimbali julli da ngay jékki-jékki xaaj ñàkk sa jaabi rek seen kenn far muy nekk nga naa waa kii ko war a nekk yàlla wax na malaaka yi nañu rey fadribu fawqa al a'naaqi wadribu kulla banaan bilal Abdourahman ibn Awf nee na ma jékki-jékki yàgg dégg benn waay bu di ma Abdu Amr faalewu ma xam ngeen ne ko faalewu parce que bi sa lismul fusuq baada al iman Abdu Abdu Amr la tuddoon te nan tuddoon te ceddo ga bi mu tuubee mu soppi ko bëggatul ku koy fàttali lenn ca ceddo ga ñoom seen dëgg foofu la yeggoon waa ji mu xam ni kii du ma faale ma ne ko yaa waa ji moo di saay saay nag mu ne ko yee yaa abdallah bi ne ko yaa abdallah mu doog a gestu xool ko mu ne ko xàmmee nga mu ne ko xam naa la fekk ab abdurahman ibn awf nee na maa ngi jot a am ay bubbi koŋ ak ay affaire yu mu jëlee ci xare bi bu ma yëkkat ne xalab xam ne dañ koy jàpp te dañ koy rey te affaire yi faw métti ci moom li gars yi naan bu la ngay rey da ngay seet sa xarit bi la gën a jege mu rey la ndax mu rey la rey gu seet léegi kon day wut kum kum jox boppam ndax ñi ngi jàpp prisonnier de guerre yi mu ni waa ji mu ni Abdourahman sànni li nga yore nga ñëw jàpp ma defe naa li nga yore maa ko gën koy baraka fekk mi nga ànd ak benn doom bu ñuy wax Ali ibn Ubay ibn Xalaf Abdourahman nee na ma daal di ni yàlla sànni affaire yi ñëw jàpp ko jàppaale doom ji nee na bi ma ko jàppaalee jàppaale doom ji si ñu toogee dem rek ba mu yàgg rek Bilal seen leen Bilal ni Umayya ibn Xalaf taw yow de nag dëgg dëgg nag tey tam xëy na ni Umayya taw Abdourahman nee na ma siggi xool ko ni ko Bilal tee ngaa def ndànk mu ni ko def ndànk lan tay tay bu bon bi nga xam ne mooy rasul kufri yaa lal ansaar loolu mooy lan mu yéen waa ansaar daw si leen dimbali ma am naaw kaay Abdourahman ni ko yow fii nga def ndànk mu ni ko def ndànk lan taay taay bu bon bii kenn dina ko gis di def ndànk saxaaba yi daw sëqatoo waaj mu xool xool gis ni xam na nag moom tey moom allaaxira ja lay reeree ji moom fegam dina reer bu demee mu taxaw taxaw ak jaaxle dikkal fu tey saa mu yuuxu fekk bi muy yuuxu benn saxaaba moo jël jaasi rek cor doomi loxo loxo loxob doom bi ñu ko coree mu dagg bi mu daggee nag mu ciit xam ni gars yi ci moom lañ jëm sëriñ mu yuuxu Abdourahman nee na dégg naa yuuxu goo xam ni keroog fooguma woon nit mën naa yuuxu yuuxu gu fooree noonu nee na bi loolu amee nag ndeysaan gars yi daal di koy tiim dabbuk ko ay jaas yi Bilaal ñëw moom xam nga rek ndeysaan xam nga fayu ko mer fayu yaama tooñoon daawaataati jéeg dabbuk ko ay jaas yi ba mokk rumux xolam daal di tedd Abdourahman dëgg la kontaan na ndax rey nañ am yéefar waaye danaan tooñee Bilal ni ko Bilal dëgg dëgg nag sama mbubbi koŋ ya dem na sama jàmba dem na loolu mooy la mooy mbubbi koŋ yan yoroon sànni na ko ndax jaam jee ëpp valeur mbubbi koŋ ya te jaam baa ngi tey rey nañ ko ni ko Bilal dëgg dëgg nag keroog Badar yàqal nga ma ndax mbubbi koŋ ya dem na jàmba dee na fi ne maa ngi ni di yàlla nga lay loolu tooñ na woon rek da ko doon kafak moom noonu rek kon Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu noonu la meloon jamonoy dox muy noddal yonent bi alayhi salaatu wa salaam jamonoy dox muy noddal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba bis ci bis yi saxaaba yi dem ci ñu tuddee fatxu makka fatxu makka xam ngeen ko bi yonent bi yëgtee daal di laaj caabi jëm dugg ci biir kaaba gi gaa yi tiit lool yonent bi julli ñaar rakka fekk bilal la àndaloon julli bi mu jullee bilal daal di abdullah ibn omar ñëw ni bilal yonent bi julli na ci biir kaaba gi mu ne ko sa biir néeg la waxuñu kaaba gi li ko wër de kaaba gi boo ko ubbee ab néeg la mu ngi mel ne néeg bi nga dugg ci biir yonent bi dugg ba ca biir néeg ba julli ko kon saxaaba yi ñu xëyee woon ci topp sunna ndax yonent bi ah Abdoulaye ibn Omar da doon dégg ni julli na ci biir kaaba gi wala julliwul ci biir kaaba gi waaw biir kaaba gi ku ko julli koy téye parce que yaa ngi ci biir kaaba gi la wër léegi yow wëroo kaaba gi kaaba gi boo ko wëree da ngay jàkkaaroon julli waaye mi ngi ci biir kaaba gi mu ne ko yonent bi julli na mu ne waaw Abdoulaye ibn Omar mu ne su man def naa erreur dama ko waroon laaj ñaata rakka la fa julli waaye man damaa fàttee laaj loolu waaye nag wér na ni julli na fa noonu yonent bi génn daal di woo Bilaal ñëw mu ne ko yéegal ci kaw kaaba ga mu yéeg tiim kaaba ga di noppi allahu akbar keroog joojee Madina Makka xay say seeg xaayee dëpp génn ndax li leen yéem mooy ñi ñu dàqoon xañ leen seeni kër ñu daan nodd di tax seeni gémmiñ kañ lañ am doole bu ñëw di fi nodd nodd di fooree ni ci dëkk bi benn waaye bi ñuy wax Abu Sufyaan ibn Harbin te fekk boobu tuub na beneen bi ñu Xattaab ibn Usayd fekk tuubagut ak Alxaaris ibn Hisaam fekk tuubagut ñu daal di toog ci pegg Kaaba gi bi ñu toogee ci pegg Kaaba gi gars yi daal di commencé di wax ay wax di wax ay wax yu yu salte ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam Abu Sufyaan ni ma ne du ma wax boobu nag tuub na nag wax xamagul lislaam nag waaye tuub na bi mu ne man kat du ma wax falan toog toog ko ba yonent bi fekk leen fa bi leen fa yonent bi fekkee ni yéen yéen may wax ngeen di am yéen xanaa ñemewu leen yéen li ngeen di wax da ngeen ko mën ta wax ca kaw ñoom ñaar ñëpp ñu tëbandoo sukk ci kanamu yonent bi daal di ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu muhammadan rasulullah yonent bi laaj na lu tax ngeen tuub ñu ni ko niñ doon waxtaanee ñun ñett ak yàlla amut ku ko dégg kon yow foo jaar ba am eh ndax booba kenn néew ci ñun kon xam nga am na ko xam ni ñu ngi doon waxtaanee nangam laa sakka ni kooku yonent bi yàlla la ñoom ñaar loolu moo nekk seen sabab ñu tuub keram Bilaal daal di yéeg ci kaw kaaba gi ndeysaan daal di nodd noddam gu foor googe nga xam ne yëngal na xool ñu bari te metti leen parce que bëgguñu woon di dégg nodd foofu waaye nag wala taalamunna naba'ahu ba'da xiin ak wala yansurunna allahu man yansuruh yàlla dina dimbali kon mbokk yi balaa maa jeexal dund Bilaal dafa am benn wax ko bu am solo may def mooy gis nga yàkkam ci yàkkamti baaxul parce que doomu aadama buy def lay def tenkam tenkam yi tekk tekkaaral rek gis nga yàlla lu jot rek mu def ko subhanahu wa taala lépp programme na ko balaa ngaa jub du jub gis nga doomu aadama nar xëy xëy sotti comme ni ko wolof yi léebee ah ñun nag boo gisee duñu dañuy effecté suñu daawa muy dañ koy bëgg a def waru baykat bu yàkkamti ba eh foo ma saxal léegi maa ma soli dama bëgg a dem kër ga loolu du sotti ñoom bi sa gerte ñoom suur ko léegi danaa ko saxal léegi boo boo gaaw dama lay sulli boo ko sullee kuy perte yaay perte ñun suñu daawa loolu la nag da ngay bëgg tey tey résultat bi ñëw mbokk yéen sa alkaram point ni mu doon daawa màkk ni mu sonnee ñu dàq ko mu dem Uhud dem Badar dem fële dem fële ba atum juróom-ñett mu doog a ñëw ubbi kaaba gi ndekete mbir yi boo yàkkamtiwut li war a yegg rek dina yegg insha allah moo tax léeg-léeg nit dana toll ci daawa day def ndànk teey rek di teeylu rek jërul yàkkamti de tey ñu def lii comme ni ko sama kalaat ci defee sabab yi déedéet du noonu gis nga xikmatu daawa te dama koy wax ay maraat yu bari léeg-léeg nga gis lu mat a soppi da ngay noppi bàyyi rek dina mat a soppeeku loolu ci xikmay daawa la bokk am na yoo xam ne dëgg la lii dañ ko war a soppi waaye lii dañ ko war a soppi du ñu ñëw ko soppi nga ne acca na soppi tey soo ko saxal naa ma soli déedéet defal naa ko rek dama soppeeku moo tax yonent bi déggoon ñu naan bu soobee yàlla ak yonent bi mu ne ci noppi ka ba ab jëmmi jamono doog koy tere yonent bi gisoon tabaxum kaaba ga jagut te tëju ko bàyyi ko noonu mu mel ah mbir mi sax day dem bay laaj mudaaraat nag mudaaraat mooy koo xam ni sa way dafa lakkale soof bay affaire bay wax ah nga mën koo tab te doo ko tuddati te boo ko taboon tuddoo ko mën na laa yàqal ci sa daawa loo xam ni ngay maslaanteeg moom rek boo rombeeg moom ci fexeel rek ba maslaa jàll lu tax loolu Aïcha daa toog ci néeg bi yonent bi toog ci néeg bi benn waay ni salaamaaleykum yëpp day su booxu wax ay wax waa ji yëg ci yonent bi ubbi kanamam kafak moom ba waa ji dem Aïcha ni yonent bi ah yow yonent bi li nga def nii mooy lan yow li nga doon wax ak bindi mu ne ci gën a bon ci nit ñi mooy koo xam ne nit ñaa ngi koy moytandiku lu ne ñu koy def ngir bëgg mucc ci aw ayam moo tax boo demee ci borom xam-xam yi ñuy dem ci buntu mu daaraat muy fexe ba na mucc say lor jàll islam yegg na ko koo xam ni yéefar bu bon bii nga xam ni ñu ngi nar a lor l'islam sax buñ amee benn kàddu buñ ko jox nañ ko ko jox sax ngir moom bu mu ñu lor na toog foofu rek bu mu indi ay loram ñëw fii xam nañu tuddee loolu mu àllafati xulu ba am ñu ko tuddee tamit jullit bu tuub te fekk ñàkk na ay mbokkam ñu dimbalee ko loolu kon faw ñu def ndànk mbokk yi dañu yàkkam ci ñun ñun dafa mel ni ñi àddina bi waaj a jeexee sabab na ci nit gaaw a yàkkamti bëgg sa résultat daaw a gaaw feeñ déedéet noox daaw na ay at ba xëy faatu li gën a bari ci luñ wax wala neuf cent cinquante ans ku koy daawa ñi am yërmande nee nañ ñoo quatre vingt personnes kese la am na ñu ne matu ko douze la soo jógee da ngay jël quatre vingt divisé par neuf cent cinquante xool par ñaata at lay am benn nit xam nga ni boo jëlee douze moom neuf cent cinquante divisé par douze moom mooy noonu dina dund lu ëpp ñaar téeméeri at doog am benn personne wala loolu wala téeméeri at doog am benn nit wala lu ko jege kon nit ki dafay am ak dal bu yëg nii borom bi lépp programme lu jot nag defal lu jotul bul ko def te it léeg-léeg ñaari mbir suñu dajee lu bon ak lu gën a bon te mënoo ñàkk a jël benn seetal la bon bàyyi la gën a bon waaye te mënoo ñàkk a jël benn lañ wax léeg-léeg munkar am lu bon am nga bàyyi lu bon loolee mu continuer parce que boo ko fi jëlee lu ko gën a bon a fay ñëw sabar gaa nga yee nga ni xaaral lañ jul jël ay xeer joor leen ko tas ko nga joor say xeer ba defe ni liggéeyal nga lislaam ñooñam mer indi ab xeex bu tàkk ci koñ bi islam dana li nga def santuma la ko tey santuma la ko ëllëg parce que tuurante deret jii ñëw sabaru am seeni bàkkaar mu yam te ñoom a ko gënal yàlla subhanahu wa taala moo tax amru bil maaruf ak nahi anil munkar dafa am ay dawaabit am ay shurut yoo xam ne nit ñi faw ñu xam ko beneen bi ci des mooy ñu gëm ni gis nga nit ki du caagee natt yi ko yàlla natt loolu mooy teggi ne amul sër ci yàlla déedéet kenn ku ci nekk yàlla ak njëkk la ku mu jaral nag doo waxaale moo tax muy teg ku nekk natt yi ñu koy teg tomb mujj mooy waxaale waxtu rahil dund gu nekk lu ko caay-caay lal lal lal ci dee lay mujj dund gu nekk lu ko mbaax lallal ci doole yi Bilaal ibn Rabaax noonu la continuer di noddal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndeysaan bis bi ci ñu xëy rek yonent bi faatu alayhi salaatu wasalaam xam ngeen gis ngeen yonent bi keroog ñu mu faatoo saxaaba yi jaaxle nañu kii toog fee di wax waxi dof kii toog fee di wax lu kenn xamut kii toog mënta jug kii moom booy wax ak moom du la faale daanaka Abubakar moo ci amoon sago ñëw delloo nit ñi ci yàlla man kaan yaabudu Muhammad fa innahu qad maat wa man kaan yaabudu Allah fa innahu hayyun laa yamuut mbir mi jeex Omar nee na yow Bakar jàngee aaya ji man dama ne waa aaya ji xanaa bokkul ci alquran ngeen jàng na alquran waaye nee na aaya ji dafa mel ni man bokkul woon sax dafa mel ni man maa ngi koy doog a xam su fekk xamoon na léeg-léeg mu dal la nag léeg-léeg ngay déglu tafsir ba mu yàgg ñu tafsir benn aaya da nga naan waa aaya ji xanaa bokkul woon ci téere yàlla bi ah nga kay daa fekk da ngay doog a def sawal kay dana ngay jàng alxuraan yegg ci leen aaya nga ne waa man sama nafoor bari ci démb xanaa romb ma aaya bi fekk romb nga ko kay yàlla dafa defal alxuraan ay kéemaan chaque jour rek am na bu bees buy ñëw moo tax nga romb aaya di ko jàng di ko jàng di ko jàng benn bis nga romb ko mel ni aaya ji yàlla laa yebal ci moom loolu ci kéemtaani alxuraan la bokk ndeysaan yonente bi faatu te moo nekkoon imaamu raatib xam ngeen ne yonente bi mi ngi faatu ban heure waxtu suba li na ci coow li takkar naa si deena deewut déedéet deewut yonent bi dafa dem comme nañ Moussa demoon wax ak yàlla dina dellu ci Omar bu ma déggee ku naan yonent bi deena rek ma cor sa baat bi ma naan yonent bi yonent bi day dee kooku du dee o fekk na moom li muy wax moom néew ci sax kooku day dee dafa dem deena jéeg boromam koo moom li muy wax nekkatu fi moo tax kenn tontatu ko léegi Aboubacar ni ko eh toogal mu ne ko tooguma laaw kooku xamatul sax li muy wax lan la waaye Omar nee na bi Aboubacar jàngee aay ji man lu ma àggale suuf laa sonn suuf man kon dama jékki-jékki rek ni gubuñ war suuf moo tax ma ne saxakaanu waqaafiina li kitaabillah xel wu waay di daw boo ko galgalee ko aay rek mu suuf ñoom bokkuñu woon ak ñun nga xam ne day defum njombe mën nga jàngal ko aay man léegi gënoo ma koo xam waaw gënoo ma koo xam loolu mooy ñàkk teggin ci yàlla dëgg na subhaanahu wa taala ndax alquran kenn du ko delloo noonu déedéet da ko fi suñu borom moo tax booy alko doo ko yëg da lay bett tisbaar jot balaa tisbaar a jot nag aw bakar dikk na moom wax na wax ja mu jeex ñu xam ne yonent bi faatu na léegi nag comme aw bakar moo doon jiite ci feebar bi aw bakar war a jiite waaye kuy nodd kan mooy nodd ndax bilaal booba lay saan fu yonent bi jëm rek mooy ànd ak moom buy xutba it mooy ànd ak moom buy dem ca àll ba mooy ànd ak moom bu yonent bi réere réere saxaaba yi xamuñ fu mu nekk sax moo koy wëri ba dëkk koo gis tax ko lool tisbaar jot bilaal ni day noon dee yaay bilaal ñëw ci jàkk ci taxaw bi mu yëkkatee allahu akbar allahu akbar saxaaba yi mel ni yonent baa ngi doo ko faat kenn mënta téye sa bopp ak jooyu metti waaye bi ñu yëkkati ashadu anna muhammadan rasulullah fala noddu ko yem noddu ko moom foofu la yem moom eggut ndax bilaal mënta muñ mënta concevoir ka yonent bii muy tudd ci biir nodd gi nekkatu bi tudd bi ñëw dañ koy suul bilaal di la ko jooyal jooy yu digg dayo yoo xam ni metti na ba ëpp allahu akbar jooy yu nekk sax tàmbali waat bu yeggee ci ashadu anna muhammadan rasulullah bi mën a dem bi ñu ko jéemee ñetti fan ñetti fan saa bu ñëwee bu ak si asad Muhammad Rasul gat ci la woo Abubakar ni ko man gis nga affaire nodd moom wàcc leen ma man fi ne mënatuma jéggi asad Muhammad Rasulullah léegi seet leen keneen kuy nodd ndax man asadu anna Muhammad Rasulullah parce que du ma gis yéen bi ñëw diina si loolu moom sama xol bi mënu ko dégg bàyyi naa leen ci geneen jaamu yàlla comme jot na maa noddal yéen bi dama fukki at ak ñaar te gis ngeen fukki at ak benn ku ko no wala ñaar ku ko noddal yàlla am nga kër ci ajana yow moom aram nga xalaat comme ni gën a xadis yi passé fekk ci xilaaf ak aw bakar la aw bakar ne ko déedéet yaay continuer noonu bilaal dëgër aw bakar dëgër bilaal ne ko aw bakar bu fekkee dañ maa goreeloon ngir ni dañ maa bëgg a def sab jaam ba faw dinaa ko jéem de dinaa noonu bu fekkee dañ maa goreeloon ngir yàlla aw bakar bàyyi na ma seeti geneen jaamu yàlla bu dul nodd ah aw bakar nag foofu nga xamee ni lim doon def yàlla bu ma ne ahadina min illa btigaa wajhi rabbihi al aala mu ne ko bilaal moo jaxase ak yàlla kat ba ma lay goreel yàlla kese sax boo ma nee toog nodd noddal boo mënul demal sa yoon foo jëm baax na sama diggante yàlla kenn ku ci dugg am na ñu wax ni sax bi ko bilaal def mi ngi ci kaw minbar ci jàkk ji bilaal si la génnee madina sakk ay dëbësam omar wax ba sonn ku waay wax mu dëgër déedéet damay dem fan la jëm day dem côté Dimash côté Saam lan la fay wuti comme am na façon jaamu yàlla bu ñuy tuddee noddu liggéey na fa ba yaakaaree fa àjjana ñu ngi wutiwaat àjjana feneen te moom moom la ñëwaat di ko dugg àjjana waaye mu ngi wutiwaat geneen jaamu yàlla bu ñuy tuddee jihaad fi sabilillah ci front yi nekk fa di xeexal islam am na ci ay riwaaya ñu wax ni sax Bilaal fa la nekk Saam nekk fa nekk fa nekk fa benn riwaaya